mami Lo lan ngay xaar bu defar waañ bi. Euh, dama am cours léegi damay waaj a dem école. waaw mais danga koy defar kan nga fi bàyyi mu defar ko man defar ko ba pare nga doog a dem. mais dama am cours léegi dans quarante cinq minutes. quarante cinq minutes ak dix minutes laa ci yemale. gi demal nga defar waañ bi laa wax tegal yi nga yor te nga génn. s'il te plaît cours bi ma am dafa am importance parce que damay waajal examen. déggoo li sama yoon nekku ci tegal yi te nga romb ma. nga yow yow nag léegi dangaa ëppal da ngay exagérer. papa fii du nekk. damaa xam nga liggéey ba suul ne xaar ma jug sama yax sees naa ko fii mooy sa tëddukaay sa seestukaay su ma ñëwoon ànd ak nit nag Collé yow vulgaire nga de soo sonnee doo dem sa néeg nga tëdd fa. nekk ci. bu mu amati bu ma ko gisati. Ah, ah. yaa ngi dégg lu ma lay wax nit day am Collé yow ku soof nga yow ku ma soof nga yow te nag sax kole sayu dang yi ngay sol na dakk ci sam kër gi. daf laa jàppul sax nit sax buy sol dara day eh. xool la ko jàpp déedéet. bu ma ko gisati léegi nga ñàpp ci sa yaram bi. ngay génn nag moom di doomu nit ku yiw sol lii foog ni yaa nga ca fekk defoo dara bu mu amati bu ma ko gisati bu ma ko gisati de. doy na beneen bi ci topp. moo xar ma bu ma ko gisaat ci sama kër ah. gi yaa ngi dégg li ma lay wax bu ma ko fi gisaat parce que yow liberté ngay wër su ma génnee nga nekk ci kër gi def lu la neex ñëw di ma attaaya la yooyu bu mu amati mujjee ñëw ëpp fii taalibe lii la ñuy waxati ah, mu daf baax xol la ak xol su ma génnee ñëw bëgg am jàmm ci sama biir kër gi kolle su ma ñëwee rek nga fatt ma du ma am jàmm. waaw baal ma loolu yëpp nag du situation bi situation bi première situation mooy li xew si kër gi seen ginnaaw kër gi bu leen ma fi bàyyi ma nga kese di leen ut gàdd ñee sinon di ngeen fekk néew ma dee ndax naroon naa dee tey ci kër gi. bàjjal li ma lay expliquer mooy di la ko wax mooy boo leen génn génnatee yow Pape Cheikh kon day liggéey yow ngay génn. yow lu tax parce que lii ki fi ñëw da dul ku ndaw. wër na laabal na pël ngal baa ngeeg man laabaani léegi yomb ndaw doon laabaani léegi yomb ndaw baa joomi màgg laa yow waroo jàngi. finalement cours bi dañ kaa annulé. ah bon. oui. je pensais que sax dégg ñu ne ma yaa ngi ci kaw je pensais que peut-être xam naa da nga sa changement de poste moo tax amoo passe wala yooyu quoi. non non. mais sinon kon ma déposé la. non. yaa yaa cours bi nañu annulé rek. c'est sûr que c'est ça. oui Oh, mais loolu c'est grave te yow depuis quand la école bi commencé def loolu toi aussi mais on paye beaucoup d'argent pour ça ñuy xëy di annuler cours yi noonu. non loolu c'est à revoir ah. ah. baax na man naa ngi ci suuf. ok ah xanaa peut-être que nga defal ma benn loolu bu gaaw rek xanaa dégg nga ok à tout ok. bàjjan benn malien daal moo fi ñëw bii mooy ñaari yoon mu fiy ñëw sax astafurlah ñetti yoon parce que ñëwoon na ca kër ga. malien waaw. fii waaw. ut fi lan. Pape Cheikh lay seet Pape Cheikh nekk fi mu mu bëgg maare lu ne wax na ko fi nag xaw ma lu muy làkk. ay français ay anglais ay malien ak ay lu leen la boole di ko làkk. malien ci kër gi waaw. malien bi boo xamante daal ni ma ko gisee noonu am na daal lu luus. xanaa xamul kër Pape Cheikh. parce que ñëw na fa ba fekk ma fa jour boobu kenn jàkkaarloo kon moo ma dimbali génne mooy di gàdd ci ci ci bois di moo ma dimbali na génnee kii na ko génnal biti su du woon loolu dina ma rey daf ma menacé. loolu ba jàmm la. ah damaa fii tamit bi mu fi ñëwee ni ma ko xoolee noonu am na lu mu àndal. ndaxte sama kër gi dafa mer ba simi garaamu bi dem bay simmi beneen jiitlukaay maa ngi gis ma nga takk téere ba ca ba ca put bi gàllaaj yu mag yoo xamante ni ay gàllaaj yoo xam ne ay jaasi gis naa sax loxo golo xam naa nag du yomb ba jan man bu ne kër gi dafa am lu fi nar a xew man je veux je veux vivre dama bëgg dund bàyyi ma ma dem di ba toog may lekk cere yëpp bëgg naa booy wax dangay wax ak man bul yokk bul yóbbu sama fit bi yóbbu ma ma lan lu mu bëgg lu mu fiy ut ku muy seet. Pape Cheikh ba jàmm. ah du jàmm de ay loxo goloog lu ma la wax ni du gis naa boo xamante ne sax téere boo xamante ne sax deru yeew la ko ëwee xam nga dëkk ba am na ay yeew deru yeew la ko ëwee. loolu nag xam naa ko man daal su ma sa sañoon sax su suba ngeen yeewu ma dem dëkk ba su may lekk cere bëgg naa ndaxte dama bëgg dund. ay waaye man maa kontaan waaye nag Sala Bigué Ndiaye Gambe lii la xam ndaw piir la ñu xam xamuñu jabaay toor eh teral na nu ah. kii jar na lu nekk ah. macha allah li amatul lii amatul dafa ndox daan taa ba léegi nag saa yoo demee fekk fa tepp tepp kii nag sama rakk la nday debba si la démb ci guddi la jóge Paris ñëw uniquement rek dafa dégg léegi paabu woo ma ni ma sama jabar wàcc man na mu ne ma noonu góor damay def décoré ci sama jabar kon lii la ji yal mag ji kontaan nanu kontaan nanu tubaar fakkaat loolu la doon mhm. loolu la doon bagala nga sere koñ dene nu mee nga saaña mbaar yéen li jag-jag sa maama nga daanu naaw du naa tàggoo fara jogom jaay ndemeen aji umi njaay sa yaay layoo bi jeeg bu doomee màggee àtte leen a ah, say sa baay amoon leen ni baadoo la um na làmb jeey mbar dootu bareey balam du kumaan dombu ni roo ja wàcc naay a ah, sa baay umi njaay sa yaay yaa dëkk ndu kumaan yaay borom jaam ñi mune bagala nga sere koñ nene dumbe nga saña mbaar yeli jagjag sa mama daanu naaw doro lingeer nga sama doom ji lingeer la am nga doomi buur nga négal ma teral sama doom ji ndaxte doom ju la teral nga teral ko te yaama woon dereti yaaram te or baa ngi nii yow rek a tax ma jógee Amérique ñëw or ngi nii lépp laay def may yow eh, sa papa ma kër gi à cause jóg ñëw ñu réglé ji loolu xam nga loolu mu doon. lu mu doon sa papa génnee na ma kër gi ndax moom sëy naag paa yi nii. ay man bul ma piis lii lu mu doon ay waay yàgg àll ba ñaar fukki at ak juróom laa am ci bi xaw ma ci dara di la wax rek nga ne miix nekk jur nga ko lii lu doon. ay man yow daa wax nañ de. allo. oui Ndeye Marème euh, s'il te a jaar sama gàll tey. parce que du ma mën a ñëw comme ça ma mën a recopier cours bi non dama am benn empêchement ok merci à tout à l'heure eh, ba tey ba tey Collé man loolu moom a jaaxal ci yow. waaw matoo dara matoo dara. Ah. lu nit di ñëwee ci kër gi. xam nga nu mu tudd. waaw xam fu mu dëkk. Ah. xamoo numéro téléphone malien daal nga ci ah, xam yow xamoo turam waaye gis nga li mu ràngoo lépp waaw doon laa la bàyyee ci kër gi waaw man daal la sama yaay bootee solaay ba nga xamante ni may liggéenti lu ma fii fekk fi cadavre nu ma ko dang nag bu leen neexee ngeen toog yow ak génn ngeen moon ci famille bi damay dem su kër ga toog bi mu ñëwee lu mu doon làkk olof ma ay olof ak ay bambara ak ay joola ak lu munti làkk daal mi ngi préparé leen seen bopp xam ne dem ngeen daal ba pare dem ngeen joxe ngeen seen bopp gratuit. man kër gii. yow la xàmmeetoo doomu mbaw ngaa nga naa man yaay yow la la nga war a tuur nga kër ga yaay. ah rek la si problème bi ah. bu ne bàjjan man xajuma ci gàcce de xajuma ci gàcce sa giir gi nga bokk nag kenn xamu ci diir yàlla ñuy toog toogal toogal toogal du tuur du tuur du ñu tegi diil ndax famille ba nga juddoo kenn xamu ciy diil ay lingeer lañu diiluñu wax bi na leer ñaar fukki at ak bu ma piis ñaar fukki at ak juróom laa def ci àll bi ñëw xam nga ne bu ma xamoon lii du may ni sama wali seeg sama or bi ñëw di defanteeg yow lu baax nga def lii de lii kañ la tante ji may wooyee nag bul ma wooyee ci tante yaa mag yàlla dama ne tante ji may wooyee bul ma ko woo ci yàlla

moom yow yow xam nga ne yaa ma toroxal de waaye samay or ak samay bagage ak samay wali sëg lépp laay gàddu yóbbu bàyyi ko mu yóbbu ko man dinaa la teral boo ko doon teral doo ñëw fii di ko toroxal comme naan ni nga ko toroxalee nii ñi yem ñëw ñu di ñu xas te ñun doon nañu kenn ku ñuy xas yaw yaa yaa ko njëkk a toroxal. ay yow sama yaay. sa da damaa mas a xam ne jur na doom ju toll ni yow ci ñaar fukki at ak juróom ma def ko Amérique xaw ma dara lu xew ci dëkk bi li tax yàgg àll baaxul. téléphone yi nekk fi. waaw yooyu yaay a ngi. naroo samay bagage man te dem. bàjjen bul yóbbu oor yi ngir ma. bàyyi ma bul gën a dagg sama xol bi tey man gàcce jigu ma man yàlla naa fanaan sax tey man. yaay yow nag dóor kan de